tey bés bi nag euh, comme ni ñu ko defee ñëwaat na ci niki tey jii jëm rek ci li nga xamante ne ni euh, moom mooy njiitu réew mi Macky Sall moom nag bëgg-bëggam mooy teg loxoon ndakaaru capital bu senegal ba tax ñoom ay farandoom ñoom ñëpp kon gën na leen a ñax yokku leen fit yokku leen kàttan ngir rek euh, ñu mën a fokkati Ndakaaru ci loxo waa yeew wi yëglekaay groupe immédiat bi mënu ko xëy xamal ci xërëb bu njëkk ne daal moom bëgg-bëgg mooy gagné Ndakaaru kawetal bu Sénégal bés bi la jour ñëwaat nag ñun ci euh, base rebelle yi nga xam ne kon ñu ngi koy euh, tas rawatina kon l'armée bi jéego yi muy def ngir ngi am euh, ca bët saalumu Sénégal kon nag moom armée bi tegaat na ñaari base foofee ca Djibidione bu ñu sukkandikoo ci bés bi bés bu ñëwaatu ñun ci ñi nga xam ne ñooy waa Yewwi li ñu waxoon kon jëfe nañ ko génn nañu ci ay AMS samp euh, seen kuréel woo xamante ne kon ñoom maire yi nga xam ne ñoo fare ci l'opposition bu Sénégal ñoo ci daal di bokk di peeko réseau des élus locaux bés bi le jour mën koy xamal ci xëy bu njëkk benn doomi Sénégal daj fit nag coono te nag alkaati yi fa nekk ci réewum Italie ñoo ko daal di teg yéenekaay bi nag neen Dakar da ko daal di métti ndax jàpp nañu ni loolee kon mbiru bokk boo di compte la ba tax ñu daal di dankaafu Italie maanaam euh, Rome capitale bu Italie bu mu sukkandikoo ci bés bi le jour la tribune moom nag nekkoon l'opposition bu Sénégal rawati kon ñoom ñii la ñu war leen war rek moom mooy euh, euh, presse bu Sénégal leen war moom mooy booloo doon benn lu ko mooy ne kon ñoom ñëpp ñooy ànd daal di kon naax saay bu

ak tamit li nga xamante ne ni moom mooy euh, seen génn ci AMS samp seen kuréelu bopp ñoom nag ne kon koppar yi yëpp kon lañu bëgg euh, bu ñu ci source a ñëwaat ñun ci Bougane Gueye Dany njiitu euh, gëm sa bopp ak i taxawaayam ci biir réewum Sénégal le vrai journal moom ma ca Macky Sall ak tamit bëgg tegaat loxo capital bu Sénégal li ñu nemmeeku nag moom mooy ma ngay gën a jël kon ci l'opposition bu Sénégal di gën a kon duufal parti bi ndax seet nañu ginnaaw Bamba Fall Jibril tamit dem na fekk ji ko moom Macky Sall le vrai journal ko xëy xamal ci xëdëb bu njëkk beneen liglikaay te alerte Quotidien moom ma nga ca parti socialiste ak euh, Aminata Mbengue Ndiaye ne nag kon ñoom euh, seen ndaje bi ñu amal daanaka samedi bi ñu génn kon nekkoon doon ndaje bu tàng jër ci kawam ndax moom gars yi kon dañ ko ërtal dëgg moom Aminata Mbengue Ndiaye bi jiite parti socialiste waxtu wi alerte Quotidien muti ñu waate ñun ñu nga ca jigéen yu LD debout ñoom nag dal nañu ci kaw euh, Macky Sall njiitu réew bi ne nag nee nañ kon nañu arrêté na arrêté tonk tonk gi muy def ci ressource réewum Sénégal loolu dañu daal di xamle ñoom seen coordinatrice bi ñoo ko daal di xamle bëgg rek kon ñu indi saafara ci jàmbatu askanu Sénégal Elentine moom ma nga ca lu jëm nag ci loi bi nga xam ne mooy aar ak sàmm jigéen yi nga xam ne kon dañoo euh, wan lor ak euh, loi bi leen di protéger moom nag nee na loolee kon mbégte la ci moom tàccu na ci waaye nag lu mu bëgg mooy ñu daal di ko jëmal bu ko defee kon bu mën a antu moom Elentine moo nekkoon ganu jury du dimanche libération yene yéenekaay moom nag ma nga ca mbir mu doy waar xewee kon fii ci euh, fe xewee ci l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga astu soxna moom dafa daal di faatu ci mbir yu doy waar lépp kon yéenekaay bi di libération di ci ñëwaat ñun libération nee na kon moom faatoom daal nekk la mbir moo xam ne lu kenn mën su doon nangu la dinu nettali dëgg li amee ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye foofe ca Louga euh, réew mi quotidien moom ma nga ca l'armée bu Sénégal ak seen jéego yu ñuy def nee toll ci fukki saaku yàmba la ñu teg loxo